voilà léegi au niveau de Kaffrine euh, mu am ñoo xam ne quand ils ont entendu l'annonce de l'émission euh, ñu ne euh, ci législa ci législative yi da nga jaar ci dëkk yu bari nga def fa des promesses gisuñu un début de réalisation mu am ay xale yu bari yoo xam ne da leen dikk ay emploi ñeneen ñu signal leen ay contrat boobu ba tey liggéeyuñu ñu ne ensuite pavage bi dañ ko def ci route nationale bi ak ci beneen route secondaire boo duggee biir Kaffrine euh, route yu bari pavé wuñu ko te nawet baa ngi ñëw inondation yi mun na leen sonal comme nam leen daan sonalee yow en tant que maire yan assurance nga leen mën a jox d'abord est-ce que vous reconnaissez ces griefs qui sont non, portés mais ma tontu ay reconnaissez comme si tu moi je suis un devant un juge d'abord un moi il y a aucune promesse que j'ai faite et qui n'est pas réalisée c'est faux. waxal en wolof parce que dafa amul benn benn dig bu ma dig nit te defuma ko amul. lépp d'ailleurs c'est ça qui fait que bu fekkee loolu kay on va on allait on allait perdre ce qui suit mais ba tey ak Kaffrine nous avons une majorité écrasante lu tax loolu parce que et encore loolu un opposant peut le dire pour et cetera pour euh, se faire une publicité mais y en pas xam nga li may rafet lu tey mooy zéro pavage laa fa fekkoon di defar dugal pavage zéro pavage laa fa fekkoon. may dugal pavage xanaa kay ku la may ndékki bu la nee xaaral añ danga fekk añ zéro pavage la woon di fa Thierno Birame Ndaw géej nañ géej laal benn pavage ci biir dëkk bi man maa ko fa dugalaat ci jàppale président Macky Sall voirie urbaine bi président bi bi Thierno Birame Ndaw jógee foofu lañuy ñu gëj a dugal mètre goudron dans la commune yàlla ak jàppale président Macky Sall Promoville dana fa def 7 kilomètres Promoville war faa def 7 kilomètres. parce que affaire bi nag doo xëy rek mu sotti il faut que am ay procédure Azur ne moom tamit comme que dafay defaraat yoonu Mbacké euh, Kaffrine Mbacké dana am aussi lu ñu dimbali ci pavage foo fooy commencé dana am toujours fenn fu ñu commencé tey li am ci dëkk bi Kaffrine nag moom kenn mënut koo nëbb kafrin moom euh, ci ay diir yu néew dafa soppeeku totalement loolu nag du ci man soppeeku bi am ci biir Kaffrine ak ci région de Kaffrine de manière par la prise en charge de son économie dama lay wax may mën a fii ci la ñu nekk balaa makki Sall di ñëw Mbour un mètre de goudron ci tali régional amul tey Kaffrine nga xam ne def président defal na ko di di commencé war a commencé euh, Malem ba dem Jànke am financement yëpp yu taxaw war a jóge Koungheul jaar Lour dem ba Ribo Ndirkilaan ak Maabo yëpp taxaw la ko loolu nag loolu président Macky Sall ko def comme ni mu changé dëkk yëpp. noonu la changé taf donc man wax dëgg yàlla wax yooyu ay pavage bi nawet bi nawet bi man maa njëkk nekk maire bu nga xam ne dès le mois d' avril canal yëpp ñu def ko curage ñu ngi dox di waxtaan ak ministre ca am daaw ci biir Kaffrine inondation yi am ci Sénégal yëpp Kaffrine bokk ci lu tax bokk ci c' est parce que mesure yi ñu war a def avant hivernage di am dañ koo jël ba mu mat sëkk beneen bi mu mu war nga xam ne moo war a régler définitivement la question de l'inondation mooy la question du bassin de rétention loolu tamit ñuy waxtaan ak ministre de l'eau ak de l'assainissement ni mu ñu jàppale ba école 5 fi mu nekk ñu ñu déplacé ko mais bu ñu koy déplacé balaa ñu koy déplacé ñu tabaxal élèves yi ay école nga xam ne seen parents du ñu loru ñu foofu ñu def fa bassin de rétention parce que Kaffrine dafa nekk ci cuvette kon liggéey bi fa am liggéey bi fa am may mun a amul naa table mën nga nag nekk nit ne opposition mën nga nekk nit ku nga xam ne ànduloo ak man am nga ci droit mën nga nekk aussi nit ku nga xam sa xol dafa xaw a métti. ngay mën na ànd ak yow te mu am insatisfaction. ci sa action locale. mais mun na loolu amul kenn. mën na nekk deuxièmement deuxièmement emploi yi ñu dugal ci région de Kaffrine. emploi yi ñu dugal ci région de Kaffrine indépendance ba tey nii kenn musul am le dix centième ci région de Kaffrine benn président de la République musu koo dugal musu fa dugal centième kon loolu dañ koy lu ba pare gërëm président Macky sal bi nga xam ne la ko suma loxo ba mu dugg ci région de Kaffrine mu nekk une fierté man utuma ci dara xam nga ma ci chaque jour ma gis waa Kaffrine nekk ci dara jàpp ci dara économie locale bi dundal beneen bataille man nekkuma ci bataille politicienne yooyu man beneen bataay laa nekk bataille bi ma nekk dama xam ne économie yu lu koy doxal ëllëg mooy l'industri l'industrialisation moo tax bi président génnee idée wu agropole yi ñu def agropole centre chaque jour damay dem ci ministre de l'industrie ne ko vous avez la la solution pour l'industrialisation de Kaffrine te président ma ci jàppale loolu nag bu ñu àggee franchir étape boobu bu boobaa man mun naa. alors mën naa mën naa assumer leneen nekk ci leneen.